dans la commune de Rufisque Ouest dañu am candidat candidat bi ñu investir ko dans sur la liste nationale muy l'honorable député Souleymane Doy. Souleymane Doy ku ko xam ham xam gimu gi mu jàpp waa Tëngéej xam bëgg bi mu bëgg Tëngéej te muy dëgg ci moom te mu sincère ci di fi def leader politique bëggoon nga ko fi def tey jeunesse bii nga gis ñu ànd ak mom joxe seen kàddu yaakaar naa ay ay tapale tappale yëkkatiwu kàddu yu dëgër a leen di tëkk de wóolu di en tout cas ñu ngi derrière lui avec tous les membres de la coalition pour jàppale ko jàppale la monsieur euh, monsieur le maire Alioune Fall Mar ci victoire bi nga xamante ne moom lañ bëgg teg ci loxo Sénégal. fii à Rufisque West, bëggoon nañu vraiment gën a yëg bi pour gën a wane une mobilisation gën assurer leen ne Inshallah, allahu rabbi le 31 juillet au niveau de la commune de Rufisque Ouest ñi ma lim ñëpp bu ñu àndee waxuma la 60 pour cent ñu président Macky Sall la wax waaye à 90 à Rufisque Ouest la commune de la coalition va gagner ndax yow xam nga situation politique u Tëngéej waa Tëngéej ko wax nañ ko soxna jaari xam na ko dañu nekkoon en ordre dispersé ñu am ay candidats yu bare yu dem ni may tooñee mon grand Alioune Mar mu nax ñu ñun ñëpp ñu dem def ay candidature mu daal di ñu gagné moom c'est un baobab fekkee baobab boobu nag décidé né, day président Macky Sall frère ndax ñi ñoy tête de liste ak colistière wayé nak ñun Rufisque Ouest ñun jokul ñun dañu am frère liste bi rien que pour ça rien que pour ça nous devons tous nous mobiliser pour faire élire Souleymane Ndoye mi nga xamanté aussi aussi dañuy wax dès lors que nous tapons comme tête de liste avec Diary comme colistière nous avons Nous nous avons di choix président de la république le choix coalition le choix la ndax nous Diop département nous ku assemblée parce que souvent et c'est l'occasion de répondre souvent nous nous depuis cinq ans mais député assemblée nationale c'est pas les séances plénières seulement séance plénière ay caméra ñoo fay né donc ñu bëgg a buzz ñoom ñoo fay né waye man damay participer si sama ligue ay commission technique di gis lan lañ Diagne job di défendre au niveau de l'Assemblée nationale nous muy défendre Tëngéej nan la honorable Seydou Diouf di défendre Tëngéej nan la honorable Souleymane Ndoye di défendre Tëngéej nan la sax suñu sœur bobu Adama Kadam di défendre Tëngéej donc tay buñu ñu investir ñett ñooñu daal di jël suñu sœur Diary Diène muy jambar nous avons ju mën comme militant de la première heure Nous sommes contents de dañuy Nous sommes loolu wax du gudd rek tête de liste on est mobilisé la jeunesse est mobilisée les les les femmes sont mobilisées les femmes de Rufisque Ouest Marietou et toutes les femmes de Cité Filao de Médine de Diokoul nous tous taxaw pour le 31 juillet jox majorité président jox majorité coalition Benno Boréakar pour continuer les projets wax ju wax nak di yàq xel di ut bës di wax wax ju ñaaw ñun duñ leen faalé kon nak bu leen leen faalé bu leen leen faalé def leen l'essentiel ngeen dem teel a voter bulletin bu marron bi ak fas bi xam ngeen ko pour que ñu fal ñii joxaat majorité président Macky Sall pour que ñu développer dëkk bi développer Tëngéej